waaye kii du booy mayoor booy mayoor a ngoog waaw waaye kii du père laay laay li yaa moom fii maa fii de laa génn père fii laa bëgg génn sax yàlla leen. kon bàyyi nga mayoor ga. yow da maa ngi ci mayoor gi ba léegi nag. ah yaa ngi ci mayoor. mayoor moo indi. waaye mbaggatoo. waaw mbaggatuma. da ngaa fixe damaa fixe moom fixe sa bopp nag. man dama doon doxantu rek. jàqaale koor. ndax kër ga ma ne man doo nga fay woor. man moom. Ah. damaa kontaan ci yow. waaw ah. ndax euh, waykat bi wax na ko. booy jaay Dakar sax am ca fulla. waaw foofu daal laa génn. ay uul ak. nga ma nga. màdd màdd ak yooyu yëpp tool looy say jaay rek am ca xul la li ngoog mais man nag dama doon tëj nii waaw ndax dama am ab yóbbante bu ma waroon uh, yóbbu ah, ca daw ca daw ca man ah, damay doxantu nii man dama am ku ma xaar fi nag yàlla lay indi di léegi nag ah xam nga yow sama père nga waaw te yoo xam naa ne yëf yi njaay war nga koo mën waaw toogal fii rek ab benn dix minutes ma jël yóbbante bi fii moom damaa mën a jaay heure bii xale yi duñu jënd dara njaay mu sew la ñuy jënd rek ku ciy jënd njaay mu mag nag nga xaar ma te njaay mu sew mi kat lu ma la ci xamal. Hmm. am na pourcentage loo ci jaay bu ma ñëwee rek sa wàll nga ca. xam naa man xam naa ne boo ma waxul lool di nga ma jox. Hmm, man moom moom yooy laay wax dëgg yàlla ndax ku lay jox ta laajoo ko moom. waaw bu la santee du jar a wax. waaw loolu moom am na lee tax dàq koor baax. waaw kaay dàq koor nii ñoo jël chaise ah, waay waay ndeysaan waay. waaw waaw am ful la ak. fay ma waaw ma dem ta ñëw. ah waaw gérer rek man woolu naa la. waaw d'accord du ma yàgg dégg nga. d'accord ok d'accord. tey koor koor lépp naan tekk garab yi woor sa yi woor ñu baax ñi daal looy jënd tàngal tàngal meew kaay taxaw nii bu dugg ci boutique bi nag bu tugub jàmbur la bugguma benn problème taxawal nii ma indil la am aca gone waay gone la Youssou Ndour daan wax naan ku sañoon dellu doon bébé tey de bu ma nekkoon bébé de ñoom ñoom ñoom la ka ci neex la xoolal ci tàngal ja na mu ko nar a màccee màcc ci lan biscuit ah taal nii kàngal ak fayda yooyu am taxawal ñun bul ñëw dégg nga li ma wax bul ñëw léegi xam naa ni may def tàngal ji sama poos laa koy dugal gannaaw tàngal la ngeen di jël tàngal ji sama poos laa koy kaja ngombozima booy xanaa gisoo ne maa ngi julli taxawal nii non booy bi wax na dëgg li tax mu bëggoon la tëj sax lépp jaayum koona ci gën a métti yaa ko moom kaay soo ko dajji dajji ko ma dajjil la ko mu dama wodd lekk lekk ci cooy booy li leen yàlla defal ko yàlla defaloon de xam naa ne ñu toj fi doo may benn koo rek mën koo ñam xam nga xel baaxul su waay mënu ma cee am ñaara damaa yor sa benn jeune frère ca kër ga sa benn jeune frère loo ko yóbbante di looy ree booy dangaa defe ne maa koy lekk aca demal nag merci yàlla e! e, e, na saw yoon neex eh eh tëj naa tëj naa tëj naa ayca ayca eh tëj naa demal eh oh tëj naa tëj naa tëj naa ah booy booy booy du nii nag ah lan ah waaw dama lu tax ngay tëj ah booy booy lii laa fi jaay lii laa boobu ba léegi mais naka Ndiaye baa neex na. Ah, waay waay yow fexeel di jaay rek ku nekk ak la nga xam. a ah, waaye yow nag fexeel di jaay. mais lii baax na waxoon naa la ñenn mu sew la ñuy ñën. lii nii xaaral nag ma ñëw décorer la. ah man mi dama lay décorer sama décorer nag may mayor daal la. mayor laa lay may. wuu booy jar na waaw xaaral ma ñëw may la. ah benn boîte laa lay may. si booy bii ba laa su dëgg la. yow sama père fii laay génn ak waaw waaw waaw merci waay booy. kontaan naa de. man it kontaan naa. waaw kañ laay ñëw kër ga nag sax xam naa ne moom. Hmm. mënatuma kii. waaw d' accord kontaan naa. waaw jërëjëf. bonbon nag. bonbon benn booyee ko jënd fii sarax ma ko ñu dañ koo digal saraxu bonbon. waaw waaw. léegi yow dama koy yóbbu kër ga. koo koy jox bonbon. waaw. merci. waaw. Sukirek lagi stay Bengatem America Amul dara ci Africa Yow dem nga